sëtub Samba Tukulóor Ka bi doonay Serigne Mor Saaw di kenn nag ci caaween waaye di kenn ci kan président Karim Wade yor mouvement Karima si bu mag bi di jàmbaar di gërmi ma di ko faral di wax ni ndey bu soo nit dana la ëpp yaram waaye nit du la ëpp jom nga doon ngor lool doon ko ci say maam suñ xaadim jël bis bi dara jaarale ko caaween kenn desu fa tey caaween kenn nelawul ñëpp ànd ak yow ñëw ci bisu Serigne Saliou bi màgg nag. mbooloo mi asalaamaaleykum samay mbokki bopp euh, maa ngi leen di nuyu di leen ziar soxna Ndeye Bousso saaw ci kàddu gi euh, maa ngi remercier ñëpp di remercier ñi nga xam borom bés bi borom bés bi nag du kenn ku dul sëriñ Khadim Diagne Serigne Khadim Diagne soo wootee wér dig nii la war a mel. ndax borom xol bu rafet su wootee day dañ koy xam ca woote ba waaye bu loolu passé maa ngi remercier fa ma jóge muy caaween di ko te wax dëgg fa yàllam fakktaluñ ma waaye tey bi ma wootee kenn desul di gërëm waa xayra 2 ñu tënku ci mouvement bu ñuy wax Karim Espoir 2024 nekkal fi Abdoul Karim sa Wade euh, solution de Sénégal tàccu leen loolu yéen waa PDS tàccu leen loolu kooku mooy solution de Sénégal di remercier ñëpp euh, maa ngi tuub parce que guddi na ku toog ba une heure yor sa borom kër mu lay xaar métti na waaye xam naa ne maa leen ko jaral di remercier tamit Serigne Ibrahima Ka moom tamit euh, bu ma limee wàccaawen lim naa ñëpp waaye di ñëwaat ci jëmm ji nga xam ne xeebu ma yéemu ma jël ma dara jaaleel ma bis bii mu doon loo xamante ne ni nag. Euh, fu sama xol sedd fa la am na fu mu commencé mais amul fu muy yem wax dëgg fa yàlla parce que lii du lu ndaw ku jël cër jox la ko kon desee la tulu dara waaye nag di tuub bu baax ndax dañoo fàtte woon jëmm ju am solo suñu secrétaire général maître Abdoulaye Wade di ko ñaanal gudd fan ak wér ba li mu yéene ci doomam ji di Abdoul Karim Meïssa Wade fekk ko fi ba buy prêter serment fekk ko fi loolu ñëpp ko maa ngi koy dégaan ñëpp ñu ñaanal ma ko di wax ne sëriñ xaadim dangaa baax sëriñ xaadim dangaa gore sëriñ xaadim danga yiwén kon tey sa bés bii suñu teewaay na nga xam ne loo ñu gisee rek xeet nañ lii nga xam ne moom lañu ñu def ndax suñu sañoon dañuy yendoog yow fanaan ak yow ndax kat li ñu cërale amuñu luñ koy fayee wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ci yow vraiment kontaan nañ ci yow waaw kon am nañ ci yow loolu nag wax dëgg di gërëm tamit soxna Ndey Faatu Ngom wax dëgg fa yàlla moom tamit kenn demul mu des sama jàmbaar jooju ndaxte yónnent bi yow mënoon nga ne rek ndey bu soo xaree la booy seet sax maa ko mag du ma ànd ak moom di politique waaye defoo loolu dangaa ñëw ànd ak man doyloo ma doyloo gi nga ma doyloo nag maa ngi ñan suñu borom gën a feddale suñu kóllëre kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye tamit maa ngi jéggalu maa ngi sant kii ngeen xamante ni moo nekk sama droite kooku nga xam ne sama doomu ndey la su ma geesoo moom laay gis lépp li nga xam ne woote naa ko mami si sa jiitu si na si loolu kon nag mami ah. euh, cant gi ma lay cant am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem kon mami gàccaa nga lamba euh, xewle nit ñëw ci amee la too ko fay kon yow mami mënuma laa fay ndax ku ñëw ci sa xew rek moo la yëg maa ngi remercier ñëpp merci beaucoup